حمدي وزكر لمن كل بزارة لو ردنا نظر زارة إن الذين إلى سرسارة قد قصدوا زيارة فاروق الدار ci kilifteefu sëriñ abbas mbàkke xalifa borom daaru muxti ci kilifteefu it sëriñ moustapha absa mbàkke xalifa cheikh modou awa balla ci njiitalu sëriñ mouhamadou kara mbàkke kosa assuloo xalifa sëriñ kosa mbàkke assuloo mboolem taalibe sëriñ kosa mbàkke assuloo yi soppe yi xarit dëkkandoo yi ñoo leen di woo ci journée culturelle bi nga xamante ni dañ koy waajal muy doon wàccaayu màggalu sarsaara bi nga xamante ni euh, vingt septième jours ci ramadan la ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor euh, ñu koy amalee journée bi ci place de souvenir kon di ci woo ñëpp di ci woo xarit di ci woo mbokk taalibe di ci woo am ni jàmm di ci woo dëkkandoo di ci woo ñëpp kon xam naa kàddu gi dañ koy jël jox ko sëriñ ko Koso Badiane mu wax ci turu taalibe yi ak njabootuk sëriñ bi bu ñu noppee dinañ jox kàddu gi sëriñ Modou Kara Ndoye mu wax ci programme bi ak fa koy amalee ak nan la ñuy tëralee bis bi dinañ jox tamit soxna Xadi Caam mu wax ci turu soxna yi kon programme bi noonu lañ ko bëgg a tëralee kon dañuy jël kàddu gi jox ko sëriñ Koso Badiane mu wax ci njabootu sëriñ bi ak ci turu mbokku taalibe yëpp. ci wàccaay wi ñu jëmm nga xamante mooy journée culture bi ñuy defal sëriñ Koso Mbàkke Asulo le 26 journée boobu nag. danoo jot ndigal ci ku baax ku tedd gi sëriñ Modou Kara Koso Mbacke Assoulou mi nga xamante ni moo jiite liggéeyam sëriñ Koso bi ànd kook rakkam ànd kook taalibe yi ñuy def waxtaan fii mu joxe ndigal ñu ànd ak daayira bi ma fàttali bisri ànd ak sëriñ Modou Kara Ndoye ñoom ci liggéey bu tedd bu sell boobu moo tax ñu toog fii tey fas yéene woote bis bu sell boobu sëriñ bi jox woon ndigal mboolem njabootu sëriñ Koso Mbacke Assoulou sëriñ baa ngi leen woo foofu ca place ba ak mbooleem taalibéy sëriñ Kosa Mbàkke Astulo yi sëriñ Modou Kara Kosa nee na mi ngi leen woo ci bis boobu ak mbooleem soppey sëriñ Kosa Astulo sëriñ Modou Kara Kosa mi ngi leen woo ci bis boobu bis boobu nag yàlla dañu ko denc lan ba heure ba jot ma génneel ñu ko ñu war cee def wàccaayu màggalu Sarsara tudde ko ilaa Sarsara te xam na lan fay def lépp dañ fay fàttali ko ju baax ku doon liggéey ci dëkk bi liggéey bu rafet yàlla di ko fay tey kooku la ñu fàttaliku kooku lañuy ñu wooteel bés bi te place de souvenir le 26 mai sëñ Modou Kara Ndoye bu duggee dina leeral programme bi ni mu gën a rafete dina leeral heure yi ak barab bi ak neen koy doxale bu soobee suñu borom tabaaraka wa taala kon nag li ñu ci bëgg a wax daal mooy sëriñ Modou Kara nee na képp ko xam ne soppeem nga wala soppeem sëriñ Kara Koso wala soppeem sëriñ Koso Astou Lo wala nga yaakaar diine wala lislaam wala nga xam ne seqen nga ak sëriñ Kosso lu toll ni benn bis lu toll ni benn heure lu toll ni benn seconde ci lu baax ak rafet sëriñ Modou Kara Kosso nee na woona la ci bis boobu ndax bisu boppam la bisu waajuroon ba bisu sëriñam la bisu sangam la te nee na moom bis boobu moo di ab lampam bi nga xam ne moo koy leeral la yoon wi kon nag ku ko fekk foofu rek ne la wóor ne xolam sedd na te it bis boobu duñ koy ubbee maagal sar saara waajale ko sar saara kon boobu bis nag sëñ Modou Kara nee mi ngi ciy soññ taalibe yi di soñ dongo yi di soñ waa daayira ma faatal bis bi nekk Dakar ñu ànd ak sëñ Mourou Kara Ndoye ñoom ñu taxaw bis bi ni ko gën a rafete ba lépp jeex ñu takk suñu bagage wuti sarsaara teeru gàññi teral leen ci bis boobu di ndogo yi ci barkeb sëñ Mourou Kara Kosso asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu comme ni ko sama kilifa yi jaar ni ko waxee muy danoo nekk ci wàccaay bés boo xam ne dafa am solo lool muy bésu journée culturelle Serigne Kosso Astou Lo Mbacké ñu koy defee place place du souvenir le 26 2019 bi ñu jëm incha allahu rabbi ñu ciy woo tamit mbokk taalibe yëpp bàyyiwun kenn fas yéene tamit ànd ceeg suñu mbokk taalibe suñu soppe suñu xarit muy waa daayira Saxaadatu Tulaab mu nekk Daaru Muxti nga xam ne lépp lu dugg lépp loo xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ngi ciy sóobu ci ñoom lañ koy ñoom lañ koy àndal ñu bokk ñu bokk lépp bokk maam Cerno Ibra Fati bokk Daaru Muxti bokk lépp kon ñoo ñooñu leen ko àndal ànd ak ko tamit suñu kilifa muy waa daayira Mafatihul Bichri nga xam ne ñoom lépp loo xam ne ab liggéey la bu jëm ci bu jëm ci bu jëm ci Sarsara fii ci Ndakaaru base bi ci ñoom lay ci ñoom ci ñoom lay ko tàmbalee kon ñu ngi ciy ànd ak ñooñu noonu fas yéene tamit wax waxtaanee tamit programme bi nuñ ko fay tëralee ak heure bi ñu fa war a bi ñu war a tàmbali incha allahu rabbi xanaa niñ ko waxee rek niñ ko niñ ko fisalee ci ci programme bi mooy li buñ commencé 10 heures ba jàpp 11 heures dañu fi la ni dalalee gan yi teeru gan yi dugal leen ci biir salle bi incha allah rabbi 11 heures nag ba 15 heures incha allah rabbi ñu ngi fas yéene durus xasida jàng alxuraan nga xam ne moo nekkoon lépp sëriñ bi nga xam ne sëriñ so moom xasida ak alxuraan alxuraan alxuraan yaakaar naa ko képp koo defar rek yaa jàpp naa ne defal nga ko loo xam ne lu mu bëgg la kon jàpp naa ne lool tamit warteef la moo tax ñu ñu farataal ko lool fullaal ko lool mu bokk lool ci programme bi ginnaaw bu loolu jàllee tamit fas yéene na 15 heures ba 19 heures fas yéene waxtaane tamit fas yéene def tamit benn conférence conférence boo xam ne sax du doon du benn thème mooy te bi mooy vie et œuvre de Serigne Kosso maanaam dundu Kosso dundu Serigne Kosso Astou Lo Mbacké maanaam suñu kilifa yi suñu suñu suñu conférenciers yi waxtaa waxtaan nañu ci fàttali ñu waat Serigne koso ndax tamit ni ko gars yi waxee woon ca ca ca ca ca ca ca ca maam Thierno ca màggal daaru ga xam ceerno dafa jot waaye tamit yà jàpp naa ne xam sëriñ koso asuloo jot na fàttali ko sëriñ koso borom bu jafee tamit yaakaar naa day day dafa jot kon moo tax conférence bi nañ ko bëgg a sax du doon kenn benn conférencier rek dañoo bëgg lu mu mel ni genre essence essence lay doon nga xam ne maanaam ay conférencier yu bëri lay doon ku ci nekk di échangeante mu nga mu doon loo xam ne maanaam dina dina dimbalewaat mbokki taalibe yëpp ñun ñi nga xam ne ay ndaw te jamono te te te ñu ci bëri fekkewu noonu jamono Serigne ko sa asuloo loolu dina leen dimbalewaat ñu xamaat kenn mooy Serigne Kosso Astou Lo man koo royaat ndax ñëpp jàpp ñëpp jàpp na ne Serigne Kosso Astou Lo Serigne Kosso Astou Lo mooy le modèle parfait bu loolu wooyee tamit fas yéene 19 heures ba 20 heures dañuy def pause comme ni ko ñëpp ñu ko ñëpp kiyee rek ñu def ndogu fas yéene teral gan yi ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba am lu ba ba ba am lu mel ñu wéyalewaat programme bi bu vingt une bu vingt heures nag diggante vingt heures def tamit ay témoignages Serigne Kosso Assoulou ñi nga xam ne ay kilifa yi nga xam ne maanaam dinañ leen invité ñu ñëw fi dina ñenn ñi dinañ leen interroger ñu defal ñu ay témoignages Serigne Kosso Assoulou ba xol yi nit ñëpp daal tooyaat ñëpp fàttalikuwaat Serigne Kosso Assoulou après suñu paree tamit dinañ def ay discours ay discours dina fa am ay discours dina fa ak tamit maanaam wax ak ay waxtaan yoo xam ne tamit njabootu Serigne Kosso Assoulou ñoo ko fay ñoo ko fay ñoo ko fay ñoo foofu nag moom ay poème ay poème maanaam ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay way daal ay way yoo xam ne maanaam mbokki taalibe ñoo ko ñoo ko bindi Serigne Kosso ñoom ñoo koy def bu soobee yàlla incha paree ñu doog na wax mot mot fin ñu doog a kii programme bi tamit bu soobee yàlla incha allah dina fa am tamit benn exposition exposition bi du doon exposition boo xam ne écrite lay doon mais ay galerie lay doon ay photo Serigne Kosso yoo xam ne bu soobee yàlla incha allah dinañ ko fas yéene exposé nga xam ne ñëpp dinañ dinañ dinañ dinañ gisaat maanaam Serigne Kosso relation yi mu amoon la sax yi amoon à l'international de mais relation yi nga xam ne suñu borom amoon ko ak digganteem ak ak ak yi fi nga xam ne maanaam à chaque fois lépp loo xam ne amaan doon na dimbale diggante tarixa yi ba seen diggante ratax nga xam ne Serigne Kosso Astou Lô loolu rek ci la doon dox loolu tamit fas yéene nañ ko exposé wonewaat daal Serigne Kosso bu wér a wér a wér ci mbokk taalibe yëpp bàyyiwun kenn bàyyiwun kenn na ci ñëpp ñëw teew ñu liggéeyal Serigne Kosso Astou Lo Mbacké comme ni ko jëwriñ waxee waajale ko Sarsara Sarsara nag bu soobee incha allah le 2 mai lay doon le 2 le 2 juin lay doon incha allahu rabbi ñu ci woowaat tamit mbokk taalibe yëpp te bés bi tamit daa daa doon bés bu kawe ndax ndax ndax bés bi li ci tombé ci ay ay xew-xew daa bëri waaw loolu moom ñu ngi koy ñu ngi koy wax bu baax bésu le le 26 mai bii ñu jëm incha allah xam naa ne borom na moo ko tànnal boppam ndax li ci nekk ci ay xew dafa bëri waaw ndax yaakaar naa ñëpp xam na ñaar fukki fan yi fan yi koor lim lim tombeel kon ñu ngi ci woo ñëpp. man soxna Xadi Xadi Caam di di di di taalibeeb sëñ sëñ Kara Koso asuloo borom Sarsara maa ngi woo sama mbokku soxna yi sama mbokki murit yi sama mbokki duruskat yi di leen woo ci bés bi ñu dëgmal muy bési le 26. mai bi ñuy def place du souvenir di ci amal lu ñuy wax tu waajtaayu màggalu Sarsara gi am le 2 juin 2019 ñi ngi ciy woo ñëpp di leen xaar ndax su boobaa ci la ñuy su waajal ci ndogu yi ñu jëm incha allah. alhamdulilahi rabil alamin mbokk julli di mbokk taalibe yi bis baa ngi noonu muy dëppoog le 26 mai 2019 ce place du souvenir bis nag ñu ngi ciy sargal Serigne Modou Kara Koso Mbacke Assulo di xalifa Serigne Koso Assulo waaw jàmbaaram jàmbaaram ak taxaw gi nga xamante ne taxaw na ko ginnaaw Serigne Koso Assulo ba àddina si yëpp war koo delloo njëkkal kon ñu ngi ciy woo mbokk taalib yëpp di ñaan sunu borom yóbbu ñu seeg jàmm ñu fekk koog jàmm ba mën a waajal màggal ñun ñëpp ànd dem Sarsara. màggal màggal gi sëriñ bi ñaanal ñu dellu si ci jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ala rabbul alamin salawala la dilamin fil malaye mukamale harroye na wal jazadi